mbokk internet yi ñu ngi leen di dalal ci Limametti.com di leen jaajëfal ci topp bi ngeen ñuy topp ñu ñëwaat ak yéen comme bis bu nekk ci seen naafila bis bi tey nag di fukkeelu guddi ci weeru koor ngeen war a def ñeenti raaka ci biir ñeenti raaka yi raaka bu nekk ngeen war ci def benn fatiha benn ayatul kursiyu ak fukki inaanzal naaw ak ñaar benn fatiha benn ayatul fukki inaanzal naaw ak ñaar ñuy ñaan yàlla yàlla nangul ñu ko limametti point com di leen ñaanal kooru jàmm